ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub njàng mi weesu gisoon nanu ni yàlla musale bànni israel ci loxoy na ak i xarekatam ba bànni israel agsee ca tefesu géej gu xonq ga ñoom amuñu woon menn pexe ngir rëcc ci xarekati firawna yi waaye gisoon nanu ni leen yàlla xàllale woon ndox ma ngir ñu mën a jaar ca diggu géej ga di dox ci suuf su wow wante bi xarekati misira yi di jéem a jàll ñu daldi lab noonu ca bés booba la yàlla aji sax ji musal israel ci loxoy waa misira te bi ñu gisee ni kàttanu aji sax ji rëye ñu daldi ko ragal te woy ko naan dinaa woy aji sax ji yàlla ndaxte moomu musal boroom bi jàmbaar la fi nu tollu léegi ci téereb gàddaay ga bànni israel a ngi nekk ci màndig ma diggante misra ak kanaan kanaan mooy réew mi yàlla diggoon seen maam ibrahima ak askanam ngir mu nekk seenug moomeel tey ji nag dinanu gis ni yàlla toppatoo woon bànni israel ca àll ba mbind mi daf nuy won ni yàlla moom ci boppam doon doxe ci seen kanam jaarale ko ci aw niir wu rëy ci bëccëg ak ci jumu safara ci guddi li peng mooy su leen yàlla womatul woon dañu doon réer ci biir màndik ma nanu jéem a xalaat tuuti ci yan anam la bànni israel nekkoon mbooloo mu rëy lañu woon mbooloo mu ëpp waa ndakaaru yépp ci màndig mu wow koŋ lañu doon jaar màndig moo xam ne ndox ak ñam amu fa xalaat leen ci loolu mbooloo mu rëya rëy ci biir àllub nen bu dara amul lu dul suuf ak ay garab bi dég naka la bànni israel naroon a dunde kan moo leen mënoon musal ci coonay mar ak xiif naka la mbooloo mu rëye noonu ak seen jur gu bare gi mënoon a ame ndox ak ñam wu doy ngir dund ci biir màndik ma ndax mënoon nañu dundal seen bopp déedéet kan moo leen mënoon a dundal nag tont li benn dong la yàlla rekk leen mënoon a dundal te aar leen ndax bànni israel wóolu woon nañu seen yàlla wala dañu doon jaaxle ci li ñu war a lekk ak li ñu war a naan ci lu wér bani israel waroon nañu mën a wóolu yàlla aji sax ji yàlla defaloon na leen lu rëy goreel na leen ci seen buumi njaam jaare la ko ci fukki musiba yi musal na seeni taaw ci dee jaare la ko ci deretu mbote ya ubbiloon na leen aw yoon ci biir géej gu xonq ga te léegi dafa doon dox ci seen kanam ci biir aw niir ngir delloo leen ci réewum kanaan ni mu ko dige woon seen maam Ibrahima bu yàgg lu ngeen ci xalaat ndax bànni Israël wóolu nañu yàlla ndax gëmoon nañu ne yàlla mën na def li mu dige woon nanu jëm kanam ci mbind mi léegi ba xam tontub loolu nu ngi jàng ci saar fukk ak juróom benn ci téereb gàddaay ga ci tawretu musa mbind mi nee na bi loolu wéyee nag mbooloom bànni israel mépp daldi jóge elim ak si màndingu siin diggante elim ak sinaay ñu ngi fa agsi ci fukki fan ak juróom ci weer wi topp ci wi ñu génne misira ca mànding ma mbooloom israel mépp di jooytu ci musa ak arona ñu nga leen naan céy sunu deewoon ci loxob aj sax ji ca misira foofu daan nanu uuf ci ni yàpp yu fees dell tey lekk ñam ba suur waaye nag génne ngeen nu ci màndik mi ngir xiifal mbooloo mi ba ñépp dee ndax bànni israel wóolu woon na yàlla déedéet dañu ko doon jooytu sax moom ak muusa yonentam léegi nanu wéy ci mbind mi ba dégg ni leen yàlla tontoo noonu aji sax ji ne musa dégg naa jooytuy bànni israel nee leen su timis jotee dingeen lekk yàpp bu subaa ngeen suur ak mburu noonu dingeen xam ne may aji sax ji di yàlla seen boroom dinaa leen tawal ñam wuy jóge ci asamaan mbooloo mi dina génn bés bu set for ngëlëm te noonu laa leen di nattoo ngir seet su fekkee ne dinañu aw ci sama yoon wala déet noonu nag ca ngoon sa picc yi ñuy wax tipp ripp ñëw sam dal ba te ci suba ab lay ñëw muur li wër dal ba ba lay ba wàccee dennu màndin mi daj ak lu mel ni tawu yuur def donj yu sew tey toj bani israel xool ku nekk naan sa moroom man hu liy tekki lii lan la ndax xamuñu lu mu doon noonu musa ne leen mooy ñam wi leen aji sax ji jox ngir ngeen dunde ko noonu askanu israel tudde ñam woowu maan dafa meloon ni pepp yu weex tey saf bong bongu lem noonu la yàlla dundale bànni israel ca biir màndig ma ba keroog ba ñu agsee ca réewum kanaan ndax dégg ngeen bu baax fu ñam wa jóge ci asamaan ci yàlla la jóge woon ndax baane israel yelloo woon nañu ñam wi leen yàlla wàcceeloon déedéet yelloowuñu dara lu dul mbugalu yàlla ndax seen ngëmadi ak seen ñàkk kóllëre yërmande yàlla rekk a taxoon deewuñu ca biir màndig ma ndax xiif nanu jëm kanam léegi te déglu li xewoon beneen yoon boo xam ne bànni israel amatuñu woon ndox nu ngi jàng ci saar fukk ak juróom ñaar mbind mi nee na mbooloom banni israel gépp jàpp yoon wi ci ndigalu aji sax ji ñu dal refidim waaye amuñu woon ndox mu ñu naan noonu mbooloo ma dal ci kaw muusa ne ko jox nu ndox mu nu naan muusa ne leen lu tax ngeen dal ci sama kaw lu tax ngeen di nattu aji sax ji foofa naka la mbooloo ma mar ñuy xultu jëmale ko musa naan ko lu tax kon nga jëlenu misira lu tax nga nuy bàyyi nuy dee ak mar nok sunuy doom ak sunuy jur musa ñaan aji sax ji ne ko lan laa wara defal mbooloo mii tuute tere ñu da sànni ma ay xeer ba ma dee aji sax ji ne musa jiiteel mbooloo mi te nga ànd ak ay magi dëkk bi yet wi nga dooroon ca dexu niil ga yor ko te dem dinaa taxaw ci seen kanam fee ca xeer wa nekk oreb nanga dóor xeer wa am ndox dina ci génn te mbooloo mi dina naan musa daldi def noonu ci kanamu magi israel yi noonu ndox mu bare bare daldi génn ca xeer wa xellee ca biir màndin ma te mbooloo mépp naan ci ñoom ak seeni jur nanu taxaw fii ngir xalaat tuuti ci nettali bi nuy jàng tey gannaaw lépp li yàlla defaloon bànni israel ndax gëmoon nañu ko ndax seen xol feesoon na ak cant ak ngërëm ndax lépp li mu leen defal déedéet gëmuñu yàlla xanaa di xultu tey ñaawal yàlla mi leen musaloon ba noppi ci musiba yu bare bare yàlla nag moom lu mu defoon lu raw xelum nit la defoon moom yàlla yàlla aji sax ji ci muñam ak mbaaxam mayoon na leen ñam ak ndox ci biir màndig ma ndax bànni israel yelloo nañu mbaaxu yàlla googu déedéet mbugalu yàlla lañu yeeyoo woon sax lu tax yàlla wonoon leen mbaaxam ndaxte yàlla kuy sàmm kóllëre la te fees ak yërmande yàlla aji yërmande la yërmande ma tax mu may bànni israel ñam ak ndox bi ñu nekkee sax ay bàkkaarkat yu ñàkk kóllëre su fekkoon ne mucc ci xiif ak mar mu ngi aju woon ci mbaaxu bànni israel kon dañu naroon a dee rekk ca màndig ma wante war na nanu xam it ne yàlla aaru leen ndax yërmandem rekk waaye itam ngir sàmm kàddoom ni nu ko jànge ba noppi yàlla moom ci boppam dige woon na barkeel xeeti àddina yépp jaare la ko ci xeetu israel ndaxte ci ñoom la yonent yi ak mbind mu sell mi ak musalkatu àddina si waroon a jaare waaw yàlla kuy sàmm kóllëre la te fees ak yërmande mooy yàllay dëgg gi ak yàllay mbëggeel ji ci lu wér bànni israel yelloowuñu woon mbëggeelu yàlla waaye bi ñu amul woon jenn doole di ñaawal yàlla sax yàlla firndeel na mbëggeelam ci ñoom ci limu leen may ñam wu jóge asamaan xëy na am na koy laaj ci xelam ban njëriñ la nettali bànni israel am ci ñun ñuy dund ci jamonoy tey ji kàddug yàlla nee mbir yooyu daloon bànni israel misaal ci nun ñiy dund ci jamono ji lépp mat ni yàlla musale woon bànni israel ci dooley màndig ma noonu itam la yàlla bëgga musale bépp doomu aadama ci dooley bàkkaar nu ngi leen di laaj bann israel ñoom lan lañu waroon a def ngir bañ a sànku ci biir màndig ma waroon nañu for te lekk ñam wi leen yàlla wàcceel ci kaw asamaan seenuk mucc ca màndik ma fu mu jóge nag ndax ci seen pexey bopp lu jóge woon déedéet ñoom amuñu woon jenn doole ngir musal seen bopp ci xiif ak dee mënuñu woon def dara lu dul nangu te lekk ñam bi leen yàlla ceel mbind mu sell mi daf nuy won ne nun ñépp pay bàkkaarkat lañu ñi bànni israel te amunu menn pexe ngir musal sunu bopp ci dooley bàkkaar ak àtteb yàlla bu jub bi xëy na nekkuloo di dox ca biir màndig mu wow koŋ ni bànni israel waaye ba tey takkandeeru dee mu ngi la tiim ni mu leen tiime woon kàddug yàlla aji sax ji leer na nàññ mu ne képp ku bañ a nangu pexe mu mucc mi yàlla indi dina dee ci biir bàkkaaram tàbbi ci safara su dul fay mukk dee ci biir bàkkaar jaar ci àtte ba tàbbi ci safara loolu lépp musiba mu rëy la waaye ni yàlla maye woon bànni israel aw ñam ngir ñu dund te bañ dee ak xiif ca biir màndig ma noonu it lanu yàlla maye aw ñam ngir nu mën a texe àddina ak lan mooy ñam wiy joxe dund gudul jeex gi nag ndax am na ñam ci kaw suuf woo xam ne soo ko lekkee dinga mën a dund ci jataayu yàlla ba faaw déedéet amul ana wan ñam nag mooy wiy joxe dund gudul jeex gi mbokk yi war xam ne daanaka junni at ak juróomi téeméer gannaaw ba bànni israel lekke maan ma ca màndig ma yàlla wàcce na ramukat bi di musalkatu àddina si moom ci boppam mooy ñam wi yàlla wàcce ngir musal waa àddina ci dooley bàkkaar dee àtte ba ak safara nanu déglu te xalaat bu baax nag ci li ramukat bi waxoon moom ci boppam ba mu nekkee ci kaw suuf mu ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku gëm am nga dund gu jeex man maay ñam wi joxe dund gi seeni maam lekk nañu man ca mànding ma teewul dee nañu waaye ñam wi wàcce asamaan ku ko lekk doo sànku mukk man maay ñam wi dund te wàcce ci asamaan ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar kon nag mbokk yi fii lanu wara yam tey ci émission bi di ñëw ndegam neex na yàlla dinanu tàmbali gis ni yàlla jottale bànni israel fukki ndigal yi nu ngi leen di fàttali ne émission yi ñu def yépp sotti nanu leen ci ay kaset ku leen bëgg a am mën nga noo bind te dinanu la wax nan ngay def ba am leen su fekkee itam ne ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la gën a soxal mën nga nu bind ñu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP leen fàtte def seen adresse ci mbir mu leer jërëjëf yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li ràmmukat bi moom ci boppam waxoon bi mu naan man maay ñam wiy joxe dund gi man maay ñam wiy dund te wàcce ci asamaan ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar